bu baax a baax euh, dellu aman mbégte mu yaatu ànd ak yéen ci seen émission xalaas mu di suñu journal fait divers jéggalu bu baax a baax ci waa Sénégal ndax démb xalaas amul bër ki démb xalaas amul euh, jéggalu ci partenaire yi ñuy faral di àndal ci xalaas bés bu nekk euh, tey nag ñëwaat nañu ci jàmm fas yéene ànd ak yéen ci jàmm ci xalaas suñu journal fait divers Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa ji. maa ngi waaw maa ngi ziar passe partout waa ana sa bi. ah boo xamee fu mu nekk wax ma. booy bu dangereux la de. am na fu ma koy dégg de. am na fu koy dégg de. foo koy dégg. booy bi kay man jaaxal na ma rek ah ginnaaw yaa ko fi yaa ko fi kii. kay ah waaye ku bëgg liggéey la de démb. Uh-huh. doonte sax xalaas amul. dëggantaan amul mais mi ngi fi woon ba 17 heures. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw fii la toog xam nga wax kat moom boo ko teree wax. day mm-hmm. tonk. fii la toog ba 17 heures donc Abba xam nga liggéeykat la. am na fu ma koy dégg daal. jaajëf ñu ngi ñaan rek. ñu ngi ñaan yàlla moom na yàlla def jàmm ci réew mi. yàlla na yàlla def jàmm ci biir kër yi. yàlla na yàlla ci xol yi ak xel yi. ci xol yi ak ci xel yi. ci xol yi ak ci xel yi. yàlla ñuy borom jàmm yal nañu yàlla def jàmm ci xol yi ak ci xel yi. ku ne amin yàlla nga am jàmm ku newul amin yàlla nga am jàmm jàmm. amiin passe partout. Ndiaye maa ngi lay nuyu baax maa ngi lay delloo nuyu Ndiaye di nuyu ban di nuyu auditeur yu xalaas yëpp. Mm-hmm. ni nga ko waxee na moom lañ leen lu bare bari na que ñaari fan yii moom. Mm-hmm. dafa mel ni weer. Mm. waaw ñëwaat nañu nag. mi ngi noonu démb bët ki démb amul ndax coowal mbas mi. Mm-hmm. démb amul ndax coowal mbas mi. tey nag moom dinañ xalaas moom. incha allah nuyu partenaires yi ñuy gunge ci xalaas bokk ci établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ñi nga xamante ne ji ñoo ñu indil gaamu vite fait. di gaam boo xamante ji cuuraayu bant bi euh, bi lay dàqal ay yoo. ba pare bàyyi la xet gu neex da ci am cuuraayu bant boo xam ne fu mu tàkk xale mën na koo nooy mag mën na koo nooy te da ngay tàggu ak yoo. ñu teg ci benn pompe di insecticide boo xam ne moo ay ci mbóot ak weñ établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ci seen gaam indil ñu pâte dentifrice vite fait day di ko weexal di ko ba noppi di la bàyyi xetu gémmiñ gu neex brosse à dents mu ñëw ci format yëpp moo xam souple médium wala dur euh, bu weesoo loolu nag dafa am frotté vite nga xamante ne ji bu sa yaram dee metti mm. wala kon nga bëgg a jàpp forme ba say muscule nga bëgg ñu delluwaat fa ñu nekkoon da nga mm-hmm. utiliser frotté vite fait am ci pommade amit euh, ci tube établissement waa kër Serigne Touba Fall frère ak Gam bi ñu indi ci bëgg commande wala leeral wooteel ci 77 555 11 11 77 wala 77 441 06 38 beneen partenaire moo di saabu Fanico saabu bi mën te gën seetal ba pare di la bàyyee xet bu neex loolu mooy fannikoo Fanico euh, dafa sakkan am na bu ndaw am na bu mag foo demit mën nga am saabu Fanico. Mhm. mu ci boutique yi di ci marché yi di ci grande surface yi te anam yi ñu koy conserver mu di emballage beeg denc bi moo tax ñëpp bëgg ko jamono ji. Mhm. ndax dafa wér te wóor. Baara Mousso également noppal jigéen la ko jigéen réew mi tuddee ndax ay produits cent pour cent naturel. Mhm. lépp jigéen ñi di soxla ngir togg soxlaatul di ko jël di dëbbu loxo di tànqal seen i dëkkandoo mhm. euh, bu dee muscade nettetu l'ail laurier moutarde piment simple wala piment aromatisé ba ci sax euh, gingeer mhm. def nañu ko ci ay sachet dëbb nañ ko ba moo ko def ko ci ay sachet nekk en poudre di leen ko jaay mhm. ci conservation bu mucc ayib képp ku ci soxla 77 438 38 85 wala 77 289 41 35 loolu mooy baara musu ma jeexale ak CCPS di comptoir commercial de plomberie du Sénégal spécialiste ci wàllu sanitaire fii ci réew mi loolu moom ñëpp nangul nañ leen ko nangul xool nañu ne ci wàllu tuyauterie wala plomberie CCPS moo ci mën hmm. matériel irrigation également amuñu ci morom baykat yi seede nañ ko waa kaw gi seede nañu ko ndax yu baax te garantie te am solo yi ñuy jaay CCPS 33 821 14 80 77 517 98 29 wala 77 401 55 69 comptoir commercial de plomberie du Sénégal hmm. di partenaire ci xalaas ñu leen di gërëm bu baax a baax fu ñuy tàmbale fu ñuy tàmbale foo ko bëggee rek déglu ndaw si après ba mu ko defee yooyu ba pare déglu ko la ñuy dem mu jéegi nag mu ne ma ok amul problème léegi man dama lay ñëw jël si à 14h dem banque ma dëkk si 100000 francs jox la ko man ma gis nga bureau yi mu la bëggoon sànq mu ne ma Turquie yeeg nga sax Algérien rek. ñëpp a ngi lay xool xale bi da nga rafet genre yooyu noonu di wax ma ne ko ah ma ne ma ne mu ne ma yoo xam am salaire trois cent mille ma ne ko ah ñëpp ko bëgg am wax dëgg fa yàlla ak dëkk mu nii mu ne ma mu ne ci biir entreprise bi nga liggéey nga lekkal ma leen seen ma ko ah mu ne ma waa mu waaye balaa boobu maa ak yow xaa bëgg lu neex ba pare ba nit ki boo ko gisee buñ la nee doomu aadama bi mooy def lii di da nga naan déedéet parce que ni mu mel ni mu mel a tax. ah ba jëkk yore kaat kaatam bu tooy bu leen gisee ñu lay si nga defee ne ñii ñoo ñoo ñii daal ay ay nit yu baax lañ ban Sénégal am nañu bon Sénégal am nañu bon Sénégal am na ñoo xam ne ne amuñu yërmande jigéen nan nga mën a yëg jëlee jigéen boo xam ne day dem liggéey surtout mu nekk xale bu ndaw 97 may daan sama doole tey jii nii man tey xalaatuma woon sax ask mu violé ma wala loolu mais man tey sama ndaw laa doon préserver baan genre yi ñoo yàq dëkk bi xale jigéen nañu def très attention ba pare seen xaalis ci lañuy ñuy doxaanee seen xaalis ci la am am am xale jigéen ñi tey su ma nekkoon koo xam ne ni cheveux tiital na ma wala yére tiital na ma wala alalu àdduna tiital na ma comme tey kii nii kenn waxatu ko ndax balaa may waxee cent mille xaalis bu weex tal lañu ñu teg sama kaw ma sànni ko ko. ne ko soxla ma sax alal soxla ma sax xaalis ñu bon yaa ci biir dëkk bi yore fi góor yore fi yore yore fi alal du ne ko dimbali seen i ndey dimbali seen seen i jabar wala doom nekk bëgg koo yàq xale yi bëgg koo yàq xale yi dañ def trésitation man li moo dund barki démb billaahi wallaahi dama ne man man li xawma lu mu doon xawma lu mu doon génnee préservatif teg ni day summeeku ci biir oto bi oto bi tuuti noir vitrine bi noir foofu tey jii nii su ma doon jéem am lu ma doon def rek ndax may sànku te bu boobaat kenn du wax baan ndax man maa dugg ci otoom lañuy def très attention ñun xaalis jigéen ñi bu ñu xaalis jaral yi yenn yi surtout ma jeunesse bii ñi ah ñun ñi nga xam ne ni entre quatre vingt ba li nga xam ne ni mooy ay quatre vingt quinze quatre vingt dix sept genre yooyu noonu deux xale yi nañu xoolaat bu baax te lii c'est la deuxième fois te ñaan naa yàlla bu mu ñetteel nit nag nit rek la mën a doon nit dina ñëw ne la kaay ma yóbbaale la nga ne amul problème bàyyi ma dem waaye man de tey ñi ma jógee nii gëm naa ne ku ma waxati waxi yóbbaale waxuma la ne sax daw mais doo ma fa gis xalaas nag ci kaw ci kanam ci ci ci lu baax ah di leen di jaajëfal bu baax a baax ndax nag tey jii ni rëcc gi ma rëcc gëm naa yéen ñii am ngeen ci part de responsabilité ndaxte joué ngeen ci rôle daal ngeen ci rôle ndax li ma nekk ci oto bi sax maa ngi xalaat chaque fois nag moom may woo mu jéggi dama ko ne damay woo sa jabar waxu ko tout ka njaay dégg nga ko. moom sant na xalaas de. dégg ko bu baax. nee na daal bi mu nekkee ci biir oto beeg waa ji xel mi yëpp ci xalaas gi la nekkoon ba taxoon looloo ko may xelum mu jël téléphone am xam na ni su ñëwee fii su laajee dan naan ko ana preuve yi. et puis elle a intelligent parce que bu doon xëccante ak waa ji. waaw euh, leneen lu nekk euh, mënoon na ci am. man nan d'après ni waa ji doon waxee dafa mel ne waa ji daf mel ni ku ne àndul woon ak sagoom laa foog. ànd ak sagoom dégg nga waa ji mu wax déglu ko. l'autre dedans. Mais. Hein? S'il te plaît, fais ça. dama ñuy dem jàpp ci nawet bi damay dawal. xool bébé maa ngi dawal xool damay xool dawal dama rey xool xool damay dawal dama koy sol bébé xool nga dégg xool xool xool bu ma xool sax xool. xool à 14 heures ñu dem man je suis là de de de 9 heures de 9 heures à 17 heures. donc à 17 heures. mais. à 14 heures tu viens me prendre nga ñu dem fu la neex en ce moment là sérieux je ne peux pas parce que imagine xoolal gis nga ki may. mais je dois l'envoyer de l'argent millions yi mën a jox. bisu millions yi mën a jox. bisu millions yi mën a jox non day def. Mm. xaaral naa ya Mana bodoh umpan. Cuma nak angkat. Masuk dalam kawan. Mana lah kau di kau kena sih. Lah mau tahu buku. Yo lah mau tahu. Lah mau tahu buku. S'il te plaît, tahu lagi dan jawab cerai. Oh, ya lah. Bon, je suis encore en réunion, voire avec 3S. Tu vois Hein Kon, fallait moi. sama journée yàq na ko maa ngi yow ñooy ànd dama lay yóbbu fu neex 얼마나 남았어? xam moo nekk xam nga dafa fekkoon dëgg xam nga. je t'en supplie je t'en supplie s'il te plaît dawalal ñu dem parce que fu mu nekk nii xam nga mii di leen mu jot. ma ne la ma la wax dëgg. je te jure moo moo nekk saa bi mu laa la waxal tamit. mais ma ne la dama jox dëgg mais kaas ma. s'il te plaît ma ne la dama jox dëgg. man je te je t'en je t'en supplie je t'en supplie. ma ne la préservatif ma ne la ma ne la laal loo ma. je sais je sais mais yow li nga bëgg yëpp ma nee naa la. à partir de 14h. mais ma ne la 14h dama la jël si ba pare ak loo soxla ma joxaat la ko Manuela, qu'est-ce qui se passe qui se passe ma Manuela à ah, quatre moom moom nga ma yow mii Manuela moom nga ma Manuela mun mun xool je parle que du mot de gars te François jël na la envoyé message xool dana eh, eh, eh, il a petit wala wala François mooy tubaab bi ñu ngi kii yow mu lii rek chef de foofu xumboon na. yàgg nañ trop ci oto bi nag. waaw yàgg nañ trop trop. man nag man man nag Ndiaye yii xaw ma la la xaw ma curiosité la xaw ma bëgg di jox askan wi lu bari la mais yi dama koy bëgg di. fekk en fait man sama question li ma jaaxal mooy lii nii lu ci nekk. lan ci li xew nii. lu ci nekk waaw. proposition yow séquestré xale doomu jàmbur duggal ko ci oto bi. pendant lii ko day suba ba ngoon jot. nga bëgg koo force pour pour pour pour pour pour pour coucher ak moom mu bañ. nga génne xaalis teg ci table ji mu bañ. nga koy forcer fi ñu toll nii xam nga baan lu gën a urgent. fi ñu toll nii moom xalaatam moom. <laughs> waaw waaw yow sax ah. man dama leen a laaj dama ne la waa ji def nii. xale bu jigéen bi moom la lañ kii expliqué enregistré ko ñëw jox ñu ko fii. Mm. waaw lii waa ji def lu ci nekk. daf ko séquestré. Mm. mënoon na ko violer mënoon na ko fa rey. mënoon lu nekk mënoon na faa daal xale bu jigéen bi. ok d' léegi. waaw mu dawul ci oto jàmbur. waaw da mais da daf ko no xale waajee ni ko kaay mu yóbbaale la. daa tax muy dem mo non déglu ma dégg nga démb émission bi. dañ ko kaay mu déglu ma rek. waaw xam nga gis nga waa ji. waaw. waxoon naa ko fi benn waaye bu mu defee tojaanga ñoo jàpp ko. ma ko waaw. yàllaa la sàngur sutura mais li nga def bañ jàpp la. waaw jamono ji may wax ak yow nit a nga koy def. waaw nit jóge na ci. waaw bu ñu paree nit dina ko defee. waaw d'accord lii moom xoolal. waaw góor guy moolal kiyam la rek. trajet la rek. waaw <laughs> man mii. waaw ah, amul leneen. man daal boo ne woon da koo drogué violé ko. ñu ne ah xalaas la fait divers la. waaw boo ne woon da koo siif ñu ne mais yow xale bu jigéen il a dit que nee na moom xale bu ndaw la. waaw elle a 22 ans ci nu mu waxee. waaw Euh, xale bu jigéen bu am ñaar fukket ak ñaar. waaw moom ñu ko gën a nekk xale dinañ leen arrêté seen i tànk kaay mu yóbbaale la ñu bañ. waaw ñu ko mag dinañ leen arrêté seen i tànk kaay mu ñu bañ. waaw moom mu am euh, wow bët gu toll ne waa ji taxaw dèjà bi oto bi taxaw xam na ne vitre teintée la. waaw ci ni mu ko waxee xamul waa ji waa ji taxaw mu am fit ak wow bët bu toll ne dugg ci biir oto bi. waaw xaw ma lu mu fa sol wala lu mu wax waa ji wala ban kanam la woon waa ji ba tax waa ji am fitu di ko def yenn proposition indécente yi mhm. mu wër ak moom ndakaaru ba xolam sedd mhm. tànn cay waxam la ñu neex ñëw andil ñu ko mhm. ñu bëgg a incriminer waa ji fii waa ji deful dara néew na dañ ko incriminer léegi dama ni dafa waa ji dafa déglu ma rek waa ji deful dara ne waa d'accord waa ji def na wala une fille de vingt deux ans bu ñemee def lii dugg ci oto jàmbur koo xamul ñu lay génneel ay préservatif ak ki defi proposition nga naan kaay jaar si jël si ma ay quatorze heures dinaa pare ma ne gémmiñ bu waxul. waaw waaw waaw léegi léegi déglu ma. waa ji dafa wër rond-point bi ñëw ci ma boo buñ ma. convoqué ci yow ma war fa ñëw nan poison. Ndiaye nan poison waaw déglu ma rek. waa ji dafa wër rond-point bi. kenn mun laa natt yow déglu ma rek ni ko kaay ma yóbbu la mun ko déedéet mun ko ñëwal duma la def dara sa ndijaay laa. waaw ñu déparé fii nii jëm yoonu Tëngéej. ci li la autoroute ci xale bi li mu wax. Mm-hmm. ñu dem ba yóntee mun ko xaaral ma jaar sama bureau. ci même yoon bi la mu jaar ci bureau ba présenté ko ñu baree bare bari ñi ñi doon déglu dégg démb déglu nañ loolu mhm. bi mu jógee ci bureau ma nag ci la jaar ci àll bi noonu àll autoroute bi noonu waaw sa doom bu jigéen bu defoon rostop nga yëg loo koy wax. voilà donc tere. bien sûr. très xale bu jigéen bu yaru warul dugg ci oto ku mu xamul. loolu dëgg la. premièrement mais tamit ba waa ji nga xam ne moromu dafa nekk ak moromu doomam tamit warul séquestrer doomi jàmm ci biir oto bi ba ko kii est ce que auditeurs yi am nañ ci ñoom. Euh, droit joxe seen kàddu man daal yéen ñaar wuyu ngeen ànd. maa ngi lire ay message de maa ngi lire ay message kii nee na. li Ndiaye wax ànd naa ceeg moom. donc góor ñi góor lay doon kii nee na bàyyi. góor ñi rek kii nee na baan waaw il pour les femmes. kii nag nee na ñoom ñaar kii nee na ñoom ñaar xamante nañu. te yàgg lii boo moytuwul yàgg nañ ko defal. mën naa nekk loolu mën naa nekk mais dama ni la man ànduma góor ñi ànduma jigéen ñi mais daal séquestré bi mu séquestré ndaw si du yoon ndaw si su fekkee ne dafa ko stop. mu yóbbaale ko. def ko deful yoon ah mais séquestré la kay. parce que yaa ngi dégg yaa ngi dégg ndaw si di bañ. waa ji génnee bi ëpp na lii de. waaw d' naa waa déglu ma la waa ji génnee lu ko fital. waaw ah. génnee lu ko paak. ah moom yoon. loo woon ndax waa ji génneewul fital. déedéet loo woyof. fital yi waaw yow la nga la nga woyof fital. ah non non pistolet. arme ah, ah ok ok ok ah, damay bañ heure bi dem. Njaay heure dem na bu yàgg. kii muusa ko mat. Mhm. lan muusa ko fekk muy reer mu mat ko mhm. déglu dé déglu ko muusa ko fekk muy reer mu màtt ko màtt. waaw man lañ la expliquer man la muus bi màtt waaw man de chauffeur camion la dama doon dem Mali euh, bu ñu demee ba euh, benn dëkk bu ñuy ne euh, dañoo dem boo paasee Tamba. boo paasee Tamba tuuti am na benn dëkk bu fa nekk bu ñuy ne bala léegi bu ñu eggee foofu samay gars yi ñi ma àndaloon dañoo ne léegi nañ taxaw fii comme naaj bi daa tànk nañ taxaw fi ba kër gi sedd léegi fi ñu taxaw noonu léegi mu tombee heure añ ñu dem ci restaurant bi di añi léegi restaurant bi ñu dugg di añi noonu léegi ñu commandé euh, suñu añ bi ñu añ ba pare man ma jóg toog ci banc bi di naan quoi. waaw dama añ ba pare toog ci ci ci ci toog ci ban bi di naan ab muus daal daa génne sama ginaaw matt ma rek daw noonu dugg ci àll bi waaw léegi bi ma matee deret bi so deret bi du sotteeku léegi euh, affaire bi daal muus bi daal daw noonu la dawee nag dem ci dugg ci àll bi léegi euh, bu ñu bu ñu déparé bu ñu gontee foofu bu ñu gontee ma dem ba Goudiri bu ma eggee Goudiri léegi ma dem ci hôpital bi jël fa piqûre tétanos léegi bi ma jëlee pikir bi léegi ma départ ñi fanaan foofu ba ba quatre heures du matin ñi départ encore bu ma eggee Kidira tamit euh, ma dem demaat ci hôpital jël fa pikir léegi buñ départ foofu buñ jógee Kidira ñu dem ba kaay biñ demee kaay ma def scanner bu ma defee scanner kaay ma départ kaay bi ma déparé kaay man daal ma nekk ci yoon bi di daw di daw di daw ba ma egg côté Sandré balaa may egg Sandré diggante kaay ak Sandré la ma sama tànk bi bañ tànk bi jékki-jékki rek néewi tànk bi dina métti mënuma toog mënuma taxaw léegi ma muñ noonu ba egg Sandré bu ma eggee ba Sandré si la droite foofu gaare fa oto bi woo patron bi ma ne ko man de fi mu toll nii mënatuma dem. léegi nag ma yebal benn chauffeur mu ñëw yóbbu oto bi noonu fi mu toll nii tànk bi sonal na ma trop bi ma ñibbisee euh, ma ñëw Kaolack keroog bi may bi may ñëw sax euh, passe Dakar laa fayoon mais bu ma euh, bu ma eggee Kaolack mënatu ma dem parce que damaa sonnoon ci oto bi tànk bi mënuma toog mënuma taxaw parce que instant bi nii dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy télécharger rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement